Monsieur le directeur général, élection législative juillet 2023 22 23 Les fi daje fii ci Ndiabène nga première meeting d'ouverture ma ne la ci taux d'électrification de ci commune bu Ndiabène ci département bi commune bu Ndiabène commune bu Diya ak commune bu Thiaré daanaka ñoom les on n'avait même pas atteint 35 pour 35 taux d'électrification man ne mot fukki dëkk ak juróom-ñett jàpp ñaar fukk amuñu courant nekk na suñu yittee nekk na suñu soxla nekk na suñu bëgg-bëgg ma yokku ci ne courant mooy moteur du développement lépp lu doomu di def ci amul courant mënu ko def muy information muy sécurité muy transfert muy ko lépp loo xalaat muy dox bu sedd muy nga tëdd guddi taal sa ventilo muy say doom jàng mun a jàng ci condition yu baax maanaam courant mooy dund doomu aadama doomu aadama bu nekkee nit courant moom mooy xol ñu koy doxal kon nit mënul dund sans électrification ci vingt et unième siècle bi ñu nekk heureusement suma cri de cœur comprendre nga ko dëkk nga ko te wax dëgg fa yàlla nag ma dafa nag ma waxoon jëfe nga ko ba mooy sëkk ñu teg ci mois trois mois ñëw sa bureau nga convoqué ñun ñëpp les maires du département def in situation exhaustive du département jël des engagements pour relever pour permettre au département ñu am accès universel à l'électrification yàlla dimbale ñu au mois d'août ñi lancer les travaux yemul njëbel kese liñ def njëbel. moom lañ def Dia moom lañu def Combi moom lañ def Ndofane moom lañ def Ndiafat moom lañ def Lat Mbengue moom lañu def Kër Socé moom lañ def Thiaré et mun naa ko témoigner parce que du début à la fin du ma toog ñett fan ba juróomi fan te déw ma bureau te heure ñu demee waxu courant la ñuy wax ma ak moom. juillet août septembre période bu métti dëkk bi impraticable pour ñu liggéey fii say service def preuve de compétence def preuve de bravoure. def preuve d'engagement def preuve de professionnalisme pour atteindre cet objectif bi nga xam ne moom moo ñu réunir tey fii je peux dire aujourd'hui ici à Diabel au moins cinq villages ak seen i amoo boo ko boolee day nekk onze villages yoo xam ne daanaka rang de village lañ am kenn ku ci nekk sa lampe daanaka tàkk na tey bu fi jógee dañuy bës bouton bi mu tàkk loolu directeur général dinaa la ci gërëm di la ci sant bu baax ak équipe bi nga xam ne nga àndal loolu nag boo de dafa fekk dafa am la politique publique son essence, le président de la république a défini. yow nga yor en charge pour mettre en œuvre je peux dire que vous avez très bien exécuté cette politique publique Il wax rek une population de li tambali la programme bi programme PAMACEL la mais amna na yeneen programme yo xam ñu ngi ñëw muy le programme BES muy le programme PADES te loolu bu ñëwee encore une fois dinañ indi lu toll si ñaari junni dëkk yoo xam ne dinañ fa courant allah te loolu njëbel du si ñàkk Sibassor du si ñàkk Diya du si ñàkk Gandiaye du di ñàkk Combi du si ñàkk en un mot l'arrondissement de Ngothie dina si nekk bu baax baax tax bu ñu dañuy di doomi jombi bi nga xam ne mooy Émile Ngom muy le DG de Solaner bi nga xam ne mooy entreprise bu ñu jëloon pour mu def le contrôle des travaux Émile ñu ngi lay sant di la gërëm yaa ngi liggéey si toute yaa ngi indi si localité yi lii ñu tàmbali def nii tey ba généraliser ko yaa ko njëkkoon commencé boobu yaa ngi ASER mais boobu yaa ngi Senelec foo gis localité yi jéem a indi si dëkk bi kon mooy liggéey bu ñu doon continuer moo tax ñu ngi lay sant di leen gërëm di rassurer nag population bi di leen wax ne lii su ngeen ko gisee mu mun a am c'est parce que monsieur le président de la république Macky Sall moom moo ne en 2025 bëggatul gis sénégalais bu nga xam ne dina nekk fii te du mun a am si wàllu courant yaakaar naa ne courant lu muy jëriñ nag vidéo film bi ñu ñi wax nañ ko jigéen ñi témoigné nañ mag ñi témoigné mais surtout aussi xale yi témoigné nañ si li nga xam ne courant bi yëpp dina leen ko mun a indil di leen wax nag ne lii rek mooy programme bi léegi programme yi nag dañuy continuer duñu taxaw bu soobee yàlla lenn rek moo koy mun a arrêté mooy ñu créer situation yoo xam ne ñaanuñu ko yàlla te du fi am te yaakaar naa ne nag fii nga xam ne nii mooy Kaolack ku xam population bi xam ne ñu am fayda la xam ne ñu bëgg seen bopp lañ et nañ bi nga xam ne lii ñu gis président di ko def te mosu fi am wax nañ ko léegi si film bi depuis 30 ans 40 ans ñu nga xam ne ñu ngi xaar courant tey jii président Macky Sall indi na courant la dernière fois bu ma demee ci benn dëkk nee nañ ma courant buy dugg si néegi ñax ak président Macky Sall lañ ko amee kon cela dire que mooy lu muy wax amul ñaari sénégalais benn sénégalais moo am boo xam ne droit yu kenn ki am loolu la keneen ki war a am parce que l'équité sociale dafa war a nekk une réalité te ñëpp xam nañ ne léegi courant ak lu muy mën a jëriñ yëpp nekkatul luxe boo xam ne bu dañ ko destiné uniquement pour borom barke mais dañ ko war a jox ku nekk muy bu borom barke bi mais ku ko xam ne aussi daf ko soxla pour jëfandikoo ko pour mun a jëm si kanam loolu moo tax président dëgg programme yi yëpp nga xam ne incha allah bu ñu yàlla dimbalee mais ñu jàmm bàyyi ñu fii dinañ continuer programme yi pour nga xam ne en 2025 dinañ ñëpp dinañ am courant